dem ci dialogue bi je sais pa si vous suivez ce qui se passe là-bas euh, en tout cas Khalifa Sall ak Karim Wade bu ko bëggee mën nañu dem mhm. à, à l'élection présidentielle euh, dafa mel ni daal dans la classe politique aujourd'hui euh, y a un cercle euh, muy libéraux yi mhm. ak euh, socialistes yenn yi euh, qui s'entendent pour éliminer Ousmane Sonko non xam nga loolu sa analyse la. Hmm. du question s'entendre pour éliminer nous sommes dans un contexte assez particulier. parce que tout le monde l'accable. Euh, je pense que Sonko c'est dommage parce que xam nga un jeune leader tout le temps dama koy wax man un jeune leader buy politique vraiment dama koy admirer ndax dama ci jaar je sais que c'est pas évident nekk jeune di politique politique dafa métti déjà mais nekk jeune di ko def. ak li ci nekk yëpp ak li ci nekk comme sacrifice nga nangu accepté ko c'est pas évident may ma ne moi j'ai été viré par Ablaye Wade en 2004 lañ ma tax ICS donc j'étais un jeune je pense j'avais 26 ans xaw ma voilà ñu dàq la donc tout ça donc xam naa ce que c'est ma tenir président de sec ne prison may ñafe pour mu libérer wu ñu emprisonnement ça je sais on m'a emprisonné six mois xam nga ko à Thiès mhm. on m'a arrêté ici yóbbu ma Rebeuss yóbbu ma fu nekk yóbbu ma dëj yóbbu ma dëj Assane Ndoye lu nekk teg na ma ko <laughs> damaa soboon nag damay def ba ci juge d'instruction bureau juge bi pour xool Idrissa Seck suñ ko may duggal dinaa def daal dugg tribinal ba dugg jàkkaarlu euh, bureau Maymouna Ndiaye Diakhaté xaw Seynabou Ndiaye Diakhaté topp auto police bi di ko tax yooyu yëpp je l'ai xam naa li ci nekk kon xam naa sonk suy ligue politique di ñafe honnêtement je dis je le respecte mais dans l'approche dans sa démarche honnêtement dafa am yoo xam dafa ëpp parce que mën Ablaye Wade Ablaye fa mu jaar Sonko du fa jaar quoi qu'il en soit lu mu tàngoon tàng Ablaye dina am loo xam dina ko préserver pour le pays ndax ëllëg day jàpp ne su nekkee président kon ba tax na loolu soo ko bàyyee ginnaaw nga fàtte ko wala am loo xam ni comme ni ko président Idrissa Seck wax am na ay force ñoo xam ni par rapport ak à la position géostratégique aujourd'hui du Sénégal par rapport aux enjeux du pétrole et du gaz ak ni Sénégal positionné wu ñu taxaw yow soo moytuwul mën nañ la infiltrer dugg la wala am ci forme de soutien ñu lay defal yow da nga xamoo derrière ñoom li leen tax a jóg soo moytuwul yaa ngi di nga sànq si réew te loolu lay wax mu bàyyi ko xel soo ko bàyyiwul xel malheureusement di ba mu bala nga sa ba nga fa day nekk trop tard te loolu kuy politique war nga ci bàyyi xel or le Sénégal lépp pays l'intérêt du Sénégal moo war a ëpp lépp